الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala di seede ne kenn ye yoowul ñu koy jaamu ku dul moom di seede ne yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yónni woon ngir mu jàngal ñu naka lañ koy jaamoo ñu ngi ñaan yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy nangooroy ba ila yawmi din ay yéen mbokk jullit suñu borom day def ne xamal ne kenn yeyoowul ñu ñu koy jaamu ku dul man ay yéen jullit ñi xam leen laa ilaha illa allah loolu muy wone ne mbokk laa ilaha illa allah du lu ñuy wax kese laa ilaha illa allah lu ñuy xam la laa ilaha illa allah lu ñuy dund la lu jiitu yow jullit xamal ne kaddu gi texeel nit adduna ak alaxira kaddu gi tax doomu aadama mucc ci mbugalu yàlla loolu moom mooy kaddu la ilaha illa allah kaddu loom buy wone wéetal goo xam ne nii dañ koo wéetal suñu borom muy benn kaddu bu séddalikoo ci ñaari kaddu la ilaha li muy firi mooy kenn yeyoowul ñu koy jaamu illallah mooy firi ni bam des yàlla kese loolu kon muy dàq lépp loo doomu aadama di xalaata jaamu lu dul yàlla waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala it mbokk loolee mooy ñu jaamu ko bañ ko bokkaale dara moo taxoon mu yónni mboolem yonent yi mu yónni depuis nuux depuis sunu baay aadam ba baay yegsi ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam lenn dong moo nekkoon jubluwaay yónni yonent yi mooy jaam yépp xam ne kenn dong yeyoo ñu koy jaamu muy yàlla julli loolu lay jëmmal koor loolu lay jëmmal aj makkaat lu mu mën a doon la muy jëmmal mooy yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu loolu moo tax ba kaddu googu nga xam ne nag mooy kay mandargaal moo la ñuy tuddee kaddu tawxid buñ la ko laajee mooy lan mooy laa ilaha illa allah buñ la laajee luy kaddu wéetal yàlla mooy laa ilaha illa allah buñ la laajoon lan mooy kalimatu taqwa kaddu ragal yàlla mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah moo tax asamaan ak suuf taxaw buñ demee ba kenn waxatul laa ilaha illallah ci kaw suuf yàlla tukkal asamaan ak suuf loolee di laa ilaha illallah bépp jaam bu yàlla di bind yàllaam ko bindee mu am yëg-yëgu laa ilaha illallah na doon nit la wala jinne amma ay way juróom wala milieu ba màggee ñoom ñooy soppi loolu ci moom ba dugal ko ci ak bokkaale laa ilaha illa allah moo taxoon yeneen tii daan jihaad ci yoonu yàlla mooy la nga xam ne mooy àq bi yàlla am ci ay jaamam ba nga xamee ni nii képp koo xam ne matal na àq boobu yàlla dana la gàddul beneen àq àq ba mooy lan mooy yàlla du la mbugal mukk ci sawara amul kenn kuy ñëw yowmal qiyaama saxal laa ilaha illa allah xam lan la làmbaayoo mu dund laa ilaha illa allah ba pare yàlla di ko mbugal loolu moo taxit noonu la yàlla joxe woon ay ndigalam ci yonentam ak jaamam yu baax yi képp ku xis ba wax laa ilaha illa allah kenn amatul droit laal alalam kenn amatul droit tuur deretam kenn amatul droit jàpp ak njabootam comme nañ koy defee ci yéeséer ya mbokk laa ilaha illallah saxal gan koy saxal ak dund gan koy dund moo la mën a musal ci mbugalu bàmmeel comme nam lay mën a musalee ci a mbugalum sawara mooy benn pont boo xamee ni nii ña ca jaar rek ñoo yegg aljanna képp koo xam ne ñëw na yowm alqiyama ca laa ilaha illallah wérul ku mel noonu dagg na la doxoon digganteem ak boroomam laa ilaha illallah mbokk moom mooy caabi aljanna ci la yàlla séddilee ay jaamam ñi nga xam ne xam nañ luy laa ilaha illallah dund laa ilaha illallah ñooñu ñooy ñay texe nara tabbi aljanna ñi nga xam ne xamuñu laa ilaha illallah même buñ koy wax téeméeri yoon parbis waaye dunduñu ko am na leneen lu ñuy jublu lu dul yàlla ñooñu ñooy ña nga xam ne ñooy ña texe looloo tax suñu borom bu ne xam leen faalam annahu la ilaha illa allah mooy kon yow julit la gën a yey nga koy xam ci kaw suuf du julli de doonte ne jullee ko baax du nooy def ba aj makka déedéet doonte ne looloo ko baax waaye li gën a yey julit war koo ittewoo ci kaw suuf góor ak jigéen mooy lan mooy la ilaha illa allah nan la ñuy dundee la ilaha illa allah mbokk la ilaha illa allah mooy ñu wéetal suñu boroom xam ne yaa ngi nangu ne yàlla mooy al ilah mooy mooy boroom bi ñuy jaamu kon saxal nga ne yow ab jaamam nga ab jaam nag lan moo war ci moom mooy mu déglu ab sangam lépp luy déglu sangam mu taxaw ca ab jaam bu baax mooy koo xam ne du def lenn lu kon sangam boobu joxul ndigal kon julit bi gëm laa ilaha illa allah mooy ki nangu pare jébbalul yàlla ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye it ñu xam ne am na lu ca xollam ba di dund mooy mbëggeelam ci yàlla du ko yemeleeg bëgg keneen ku dul yàlla màggal ga muy màggal yàlla du ko yemeleeg màggal keneen ku dul yàlla xolam boobu du kenn kum cay ragal mu man koo lor adduna ak alaxira ku dul yàlla xolam boobu du kenn kum cay yaakaar ne man na koo joxe xéewal adduna ak alaxira heure bu jegee bay sàkku mbir du wikku ci kenn ku dul yàlla jalla wa ala xemmemem yépp ci yàlla la ragalam yépp ci yàlla la heure bu demee bay woo wallu doo ko dégg mukk mu ne yaa cheikh diw wala yaa sëriñ diw wala yaa muhammad wala yaa abubakar bal wootem yépp ci yàlla subhanahu wa taala lay dellu mbokk laa ilaha illa allah mooy la nga xamee ni nii ca la yàlla bindi jaam yi ca la yàlla bindi nit ñi ak jinne yi donte ne ne li ëpp ci doomu aadama yi dañuy bokkaale ak seen boroom na am mbokk bokkoon na lu jiitu bokkaale gi mi ngi tasaaroo woon ñii di jaamu jant ñii weer ñii biddiw yi am ñuy jaamu garab yi ñii di jaamu xeer yi am ñuy jaamu jinne yi am ñuy jaamu seeni moroomu nit na am loolu mi ngi am ba léegi waaye yàlla bi gën a rëy bi ñuy jaamu tey ci kaw suuf mooy li ñuy tudde alhawa muy bànneexu bakkan suñu borom mu ne afaraayta man ittaxasa ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm xoolal ki nga xam ne bànneexu bakkanam mooy yàllaam la ëpp ci doomu aadama yi tey alal la ñuy jaamu alal jooju mooy tax ñu génn seen réew alal jooju moo tax ñu sàggale seen diine alal jooju moo tax ñu dogoog seen i mbokk alal jooju moo leen di jaral nuñ ko mën a amee baax na mbokk ñu mel noonu alal mooy seen yàlla am na ñoo xam ne sport mooy seen yàlla am na ñoo xam ne musique mooy seen yàlla lépp loo xam ne moo lay tax di bëgg di la tax di bañ di la tax di féetewoo ak ñi nga féetewoo di la tax a def ak a bàyyi mbokk loolee def nga ko mu nekk la nga xam ne mooy sa yàlla waaye mbokk julit julit moom yàlla mooy yàlla la ilaha illa allah mooy la nga xamee ne nii yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ne yàlla daf maa digal naa jihaat ak nit ñi ba ñoom ñépp ñu saxal laa ilaha illa allah nangoo julli nangoo joxe zaka suñ defee lii day muccal nañu seen deret ak seen alal ci man lool it mi wane ne laa ilaha illa allah bu àndul ak julli ngallawaayi xëyal fajar di ko wax ba baagee jot laa ilaha illa allah bu àndul ak zaka xajal xëyal fajar di ko wax ba baagee jot waaye loolu lépp mbugal dong dong la lay yokk yowmal qiyaama te mooy yaa ngi saxal foo mën a toll na yàlla yow lay war a jaam yàlla tëralal la ak jaamoom lam la sant defoo ca dara loolee ka waxul wax ci sax moo la gën a ëpp la nga xam ne mooy ah taxawaay almuhim mbokk julit xamal ne adduna ñu ngi fiy jëf jëf ba gën a baax bu ñuy jëf mooy kaddu la ilaha illa allah abu zar al ghifari nee na dama ne yonent yàlla bi dénk ma mu ne ko abu zar maa ngi lay dénk bàkkaar mun te ñàkk foo yi ngay def nga bàkkaar jógal def lu baax lu baax day far bàkkaar maanaam ay yi mu yàlla yónni ndax kaddu la ilaha illa allah ci mbaax yi far bàkkaar yi la mu ne ma loolu mooy la gën ci jëf bu doomu aadama di jëf ci kaw suuf doomu aadama ci kaw suuf jëfoo fi lu gën taxaw wax laa ilaha illa allah ba fa laa ilaha illa allah boobee da ngay gis ne yeneen ci bi alei salaam daana wax ne man ak yeneen ci yama jiitu yépp la gën la nga xam ne wax nañ ko mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir ca loolu boo ko seetloo day dëgëral rek la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah mooy kenn néewul ñu koy jaamu ku dul moom lahu lmulk wa lahu lhamd moo moom lépp lu ñuy moom moom nguur gépp ca moom cant yépp ca moo am kattan ci lépp loolu day fii la ilaha illa allah ndax al ilah bi ñu yaakaar dafa war a am kattan ci lépp mu man ko loolu tax nga yaakaar ko doyloo ko moom kese ca it mooy ki nga xam ne moo moom lépp jàll wa ala mbokk da ngay gis ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ni li ñuy defoon yàlla ci kaw suuf mooy al iman suñ ko booyalee day ëmb lépp lu ñuy gëm di ko wax di ko jëf mu ne yonent bi alayhi salaam nee na al iman boobu day nekk na juróom ñaar fukki parti yu teg waaye ba ca gën a kawe gën caa baax mooy kaddu gi ngay wax laa ilaha illa allah bokk na lu ca gën a suufe mooy nga gis luy lor ci yoon bi nga teggi ko loolu ci ngëm yàlla la bokk mu ne waaye kersa day benn cër la ci cëri ngëm yàlla yooye loolu yi kon mbokk mi ngi noonu li ñuy defal yàlla ci kaw suuf bari na kersa ca cër ya gën a màgg ca la bokk bokk na ca doo lor waaye boo gisee luy lor nga teggi ko waaye xamal ne loolu lépp nag la ca gën a màgg mooy saxal ga ngay saxal la nga xam ne mooy kaddu la ilaha illa allah mbokku julit dafa war a am werd werd woo xam ne danga koo war a saxal mbokk werd ba ca valable mooy la jóge ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu daana wax ne ki xëy suba day ci bis bi mu fexe ba wax ci laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir nga wax ko téeméeri yoon nee na mel na nga ko goreel fukki jaam yàlla dana teggi ci yow téeméeri bakkaar yàlla dana la bindal téeméeri tuyaaba bisu keroog seytaane du la mën a jege loolu mbokk julit lu sa làmmiñ yéex-yéex du la jëlal quinze minutes nga la waay góor nga wala jigéen xoolal ci sa ah sa sa dundin gannaaw fajar lay doon avant fajar lay doon tisbaar la tàkkusaan wala waxtu way libre nga toog benn place la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir nga wax ko téeméer yoon loolu yonent bi wax da nga ko am yonent bi teg ca ne bisu keroo kenn mënul def jëf bu gën a rafet li nga def xanaa lu dul koo xam ne daa def lu ëpp loolu loolu it muy wone ne téeméer boobu yonent bi wax soo ko defoon téeméer juróom fukk mu gën a baax soo ko defoon ñaar téeméer mu ba gën a baax comme la yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne lu dul koo xam ne daa def lu ëpp la nga xam ne moom nga def ay yéen mbokk julit xam leen ne day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana bégal julit ñi ci ne képp koo xam ne nii jàpp nga ba pare bi nga jàppee nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ku mel nii de yowmal qiyaama juróom ñetti bunt àddina yépp daañ ko ko ubbil na ko fu la neex dugge fa loolu màggaay ga muy wone mooy màggaayu kaddu la ilaha illa allah ndax la ca gannaawam yépp da koy dëgëral ngal la way bu leen koy fàtte doomu aadama buy jàpp day wax bismillah jàpp ba jàppam jeex mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lii day visa buñ ne signeel bu la yóbbu ajjana la su dee ne defoo lenn loo xam ne lu safaanoog loolu la ba yàqal na ko ay yow mbokk julit adduna day munta ñàkk tiis ak i tolof tolof waaye xamal ne heure bu la yàlla nattoo nga nekk ci njàqare ka tiis barilal di wax la ilaha illa allah sunu borom mi ngi ñuy nettali benn jaamam ak yonent yàlla di yusuf ibnu mata keroog ba mu defee erreur ba mu def ba yàlla dugal ko ci kaso boo xam ne kenn musu caa dugg génn ca kudul moom ca mooy ci biir biiru balen ba daf ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin kenn yu yowul ñu koy jaamu yow yàlla lu dul yow man de bokkoon naa ci ñu tooñ naam boo ma ne zikr ba de ka def la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin waaye nga la waay boo ko mënul heure boo nekkee ci tiis ak njàqare sa lammiñ bari lal foo toll di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah mooy motooru julit mooy doolil julit moo tax julit am fit moo tax sahabatul kiram ba naafiq yi baree gul ci ñoom suñu borom dafa farataaloon na bu ngeen di jihaad su ngeen matee téeméer da ngeen dàq junni ci yéeféer yi lu waral loolu mooy ngëm gi nekk seen biir xol lam leen mën a may ñu def ko ku amul loolu mënu koo am looloo tax mbokk ki gëm laa ilaha illallah xam laa ilaha illallah na muy yége feebar bokkul ak ko xamul na muy yége ak ñàkk bokkul ak ko xamul na muy yége ay njabootam yu faatu bokkul ak ko xamul loolee lu tax mooy kooku day ànd ak ndal xel yëg ne jaamu bi yàlla la sunu borom yàlla mooy dogal ci moom ci lii mu dogal ci moom mu naqari ko su neexee yàlla mu wëlbati ko def ko ngëneelu àdduna ak ngëneelu allaxira mbokk laa ilaha illa allah mi ngi nii ki gën a yey ëllëgi ki si biir yonente borom ma ko mooy koo xam ne bi muy ñëw bokkaaliwul ak yàlla dara mbokk laa ilaha illallah mooy lu bakkaar dul yàq say bakkaar lu mu bëri bëri te fekk na yow boole woo ca bakkaar ya la yàq laa ilaha illallah ngal la way xamal ne lu mu yàgg-yàgg àddina nga jëm amma say tuyaaba lu mu bëri bëri waaye laa ilaha illallah ba moom baaxul sawara nga jëm loolee di benn règle boo xam ne jun bu nekk war naa góorgóorlu jéem koo bàyyi xel fu mu mën a toll mbokk la nga xamee ni nii mooy laa ilaha illa allah góorgóorlu leen ngeen baril ko fu ngeen mën a toll yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ne képp koo xam ne bi muy faatu laa ilaha illa allah la mujj a wax ku mel nii day àjjana la jëm waaye kan la ko yàlla di jagleel mooy ñi nga xam ne xamoon nañ ko dundoon nañ ko mooy la borom bi di wax wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanu axaqa biha wa ahliha suñu borom ci ay jaamam am na ñu ci lënkalee kaddu taqwa ca mooy la ilaha illa allah ngir xam gañ xam yeyoo gañ ko yeyoo yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne su ngeen fekkee seen mbokk julit bi faatu ngalawaay fexe leen ba waxloo ko la ilaha illa allah ndax mi ngi ci dernier combat ak cheytan seytaane tant que sa ruux génnul mi ngi bëgg nga dee yàlla ci shirk loolu moo tax ñu leen di war a wax la ilaha illa allah waaye mbokk julit aka bari ci témoignage yi borom xam-xam yi témoigné ñoo xam ne seen mbokk wax nañ leen la ilaha illa allah ñu naan waaw piis bi ñaata la piis bi day temps lay jar la ilaha illa allah ndax sama sàngara bi yegg seegul la ilaha illa allah waa ndax sama coro bi yegg seegul la ilaha illa allah am na ci ñoo xam ne sax ñi ngi doon wax seen mbokk bu leen sonn sawara laa jëm bu leen sonn sawara laa jëm lii lépp ay mbokk seede nañ ko doon seen mbokk ci contraire bi tamit da ngay gis ne benn ci docteur yi mi ngi nettali ne benn ci borom xam-xam yi doon faatu ci kanamam mu ñëw ne ko góor gi waxal laa ilaha illallah mu ne ko yow sa laa ilaha illallah bi dafa gaaw laa ilaha illallah boo koy wax da nga naan laa ilaha illallah nee na loolu la mujjee wax daal di faatu mbokk lii muy wane ne kon xam nga nga xam laa ilaha illallah dund nga ngay dund laa ilaha illallah loolu mooy tax yàlla subhanahu wa taala yombal ka ci yow bam doon loo xam ne lu mujj sa lammiñ la ca kum mujj sa lammiñ yàlla teeroo la jéggal ak yërmaane tabbal la aljanna yal na yàlla saxal laa ilaha illallah suñu xol ci jamono bu ñuy dund yal na yàlla defal ñu laa ilaha illallah di suñu mujj kàddu ci kaw suuf yal na yàlla subhanahu wa taala lënk la ñoog laa ilaha illallah yal nañu ko jaamu bañ koo bokkaale dara yal nañu am njaboot buy jaamu yàlla bañ koo bokkaale dara yal na yàlla saxal laa ilaha illallah ci réewu julit ñi ba lépp lu mu làmbool ci ay acca ak taxawaay julit ñu dund ko yal na yàlla texeel ñu ci laa ilaha illallah الدنيا الآخرة اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين